Balla Balla ngoog. gars eh, yi kan mooy jël avance bu Mame Balla. waaw mais gars yi booy gars grand kan mooy war a jël avance Mame Balla. bu dëgg yàlla Moussa daw. Moussa Ndoye da koy doon te ñun ñaar combat la comme léegi Mame Balla moom mënul dëkk di may booy chance ba kañ. Ah. du ma Tapha Leer bëgg na pour ko chance du yow. waaw loolu ah. ah. da nga jàpp ne Moussa Ndoye da koy bilaay da koy daw. combat bu la Moussa Ndoye jar na lu muy daw si Mame Balla. combat bu neex la grand contre petit la ñu am damay booy grand contre damay booy chance. est-ce que eh, non du grand contre petit Moussa Ndoye ak Mame Balla même génération la de. jeex na moo moo ko jëkk bëre moo ko jëkk bëre. mais Mame nuyu naa la. maa ngi may grand ay bopp. ma foo gis rek tàllal la micro. waaw gis nga yow aku bahagia aku nga waxuma mau moom Balla moo gën a tudd si ñi nga ñi nga defar waaw Balla Gaye ah. Modou Lo ah. euh, Ibakan moo leen génnee ah. Ama Baldé Boy Niang Ibakan moo leen génnee fii mbër fi baax bu ne bañ a coow si Ibakan la jaar waaw sa xalima la jaar quoi moo loolu terrain bi waral après nga soog a soog a indiwaat ñoom jigéen ñi ñoom su fekkee ak xaw ma affaire loolu lépp la fekk quoi. Bamba lan laa def sa carrière man. ah lan laa def sa carrière lan laa joué sa carrière. waaw li ma joué sama carrière bàyyi na te tey benn saa bi Mambal nekk Italie. waaw euh, boo gisee photo Mambal ak lu Mambal nekk Italie. Ah. yaa ko publié suñu làmb. dëgg la suñu làmb benn saa dem nañ ba classé woon Mambal fi ñu classé. Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène ah. ak côté benn saa ci mbër yi nekk extérieur di liggéey ak affaire à cause à cause yow quoi. waaw si yaayoon sa xale ma yaayoon bind quoi mooy loolu quoi. waaw am na suñu bëree bëri loolu suñ carrière quoi xam ah. nag benn saa nii yàlla dugal na benn saa ñu amee combat di daan jëlu spectacle. mais problème mooy tey benn saa nii euh, dañoo dajeeg yow tey benn suñu làmb ak lu mel ni Bantamba xam nga je suis suñu carrière loo xamante ne benn saa nii partout ko quoi. ñu bi nga ñaata at nga commencé bëre. non man man est-ce que mun naa ko jàpp sax xam naa teel naa bëri. parce que topp Malal ak Boy ak Boy laa doon topp di ñëw Pikine di seetaan si entraînement. waaw ba yàlla dogal mooy bërëntu affaire noonu quoi. Uh-huh. ba yàlla Malal jógee dem xaar pour si Baboy. waaw Boy Sey dem Kër man ma des Pikine. ba yàlla dogal ma dem ba téye ba dem ba nekk si magu Pikine nii. ci leader yi affaire yooyu ah. waaw man mais yow bi ngay fan nga dëkkoon. ba maa ngi dëkkoon Guédiawaye. dëkk Guédiawaye. marché nekk xale rek daw Pikine mbooloo. waaw non dama ñëw boobu Pikine parce que noonu wax dëgg bi ma ñëw Guédiawaye boobu. moom bi ma ñëw Pikine moom di bëree fekk may topp ñoom boosee dem naa ba commencé dugg ci dem naa ko dugg ci mbabat xaw yéeme waaw mbabat boo xam ne su ma ne Aliou Seras doom day mu ngi si Bébé Saloum mu ngi si Mansour Diop numéro 2 mu ngi Elton mu ngi si Pape Kargo ñu koy wax Pape Mbër mu ngi si kii xam nga bu baax moo ñu yar affaire quoi on fal on fal muuma ñëpp ñu si waaw ñëpp ñu si mbabat bi ñu la mbabat boobu am na trois ans chaque année Mame Balla jël bi ma lay wax nii 42 personnes lañu Mame Balla jël waaw waaw kon war a xam ne te boobu gars yi ñuy bëri arrêt ñoom Baye Gora. waaw jamono jooju ne Baye Gora. yaa ngi waay bëri yàgg waaw Baye Gora dóor Ousmane Diop Ousmane dóor yu métti daan ko. Uh-huh. te boobu ñun mënuñu bëri arrêt sax. Uh-huh. mais bëri arrêt bu ñu dajeeg ñoom dañ leen di faj. Uh-huh. waaw xam nga waaw benn instant moo ñu gën a motivé benn instant ñu dugg ci làmb ji quoi. dëgg fan ak fan nga bokkal. Géejawaay uh-huh. waaw moo loolu. Uh-huh. champion bu nekk Géejawaay. Uh-huh. wala bu nekk marché bees. waaw boo ko mën seen relation. maa la mën si mbabat. yaa mën si mbabat. wallaahi si. Balla Gaye bëri ngeen mbabat. non non non naa ko muy bëre mbabat. Uh, noonu. man ma daan Brésil yi Fass. waaw daan nga ma ndombo daan ko Tafa Gueye moo ko arbitre Mbabour Mbaye Gueye. Brise Nuit da ngaa wër ndomb. maa wër ndomb ma daan ko wallaahi laa si ma sa bëggoon doom. ban mbapat la woon fan laa woon ak fan laa moo ko tëggoon mbapatu 72 jours la. 72 jours Mbaye Gueye. waaw. Ah. Bombardier moo nekkoon roi des arènes ñëw Tapha Gueye teg ceinture di ko dàqal ah. bi su boobu maîtresse moo daan Balla Gaye. maîtresse moo daan Balla Gaye. waaw nan la ko maîtresse daan Tapha 3 Tapha 3 bi nekkoon si gi ñëw surumle. waaw moo daan bindu.

dafa 3 ci la daanee Modou Lo après ci la ko waa parcelle gisee mu dem mu dem e roog énergie si ñoom surum la na fan la nekkoon. si ñoom surum la. surum la géej waaye si ñoom Mala Ndiaye temps yii ñoom surum la. surum la la nekkoon. Hmm. mais yaa ngi la. dafa jaay na ko. Ah. si troisième dimanche maa moom ñoo ñoo daje ma buddi ko ba taxaw dóor suuf. man roi laa suñ tur moo toll dem moo tax amuñu surnom amuñu dara. dëgg la ndimbalu yàlla la rek. waaw suñu jóge ji ës. da ngaa ësoon da ngaa ësoon si mbapat waaw waaw ës nekk daar noo ko daara ës. lekk ceebu njaxasaan bu ës moo loolu. xamoo papa xamoo yaay moo loolu. kon yow ñaata mbapat nga doon def par guddi. fu ma dégg mbapat damay billaahi wallaahi wal kitaabi dama doon dugg mbapat ñu ne kii du ñu ne yow doo bëre. waaw boo demee Malika. Ah. nga laaj Kara Doole Moussa ñëw Malika ñu ne moo bëre. Ah. Kara Doole moo doon jooy ne leen leen kii mu bëre bu ñu gàcceel. Ah. kii jógu fi ngeen ñu bëre waaw ñu ne ma du ma bëre. parce que mbabru moo dugg ma koy jël. Doole naan bàyyi leen ko mu bëre ñun ay góor lañ ñun ay góor jigéen. maa ko nuyu bu baax Mamadou. Doole Mamadou la tudd. moom mun na mun seede ci loolu. dëgg la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mooy dugg mbabar mu bëre. boo juróom noonu Magu Marle moo ko daan. Magu Marle moo daan Boy Niang. moo daan Boy Niang juróom noonu. fan la woon. Caaray. ka buntu igiri ka waaw. ma forcé ma forcé luur bi jël ko. Boy Niang. Magu Marle daan ko. moo ko daan waaw daaw na muy Maroc léegi di ko nuyu baax euh, daaw daaw na daaw na. daaw na daaw na waaw. bàyyi na bëri léegi muy bàyyi na bëri biir xamante xam nga bu baax a baax. mais champion nga de li ngay lim fii man dafa yéem man. non ku ne xam nga la la mën. Ah. soo gisee mambaale mambaale mambaale bi. waaw boo mambaale am bëri année da ngay gis ñu ñëw drapeau yi fenn dell. ci lamb ji ba nit ñi amaatee duñ am luñ luñ xool ndax drapeau yi nekk seen kanam duñ gis. waaw noonu la doon demee. Ah. walaay asib dañoo demoon ba dañuy bëri di may ay drapeau da nga nekk roi Mbapat daan ñëpp am ay drapeau ñëw dugg si arène Omar Mouma Modou Lo ah Omar Mouma Omar ak Omar Mouma bi ñuy bëree Alassane Djigo Omar Fall maa bëri spécial bi maa maa trompeur maa bëri spécial maa suuf yoo kan la woon man ak trompeur maa ngi woon foofu maa ak trompeur bi nekkoon équipe ñoom Elton ba pare Balla Gaye di Balla Gaye di baaxu si jamono jooju daan posé. di baaxu ma firi ma toll nii daw engagé ko. Uh-huh. di ko dëgg yàqu baaxu bi. dañoo yàgg am coow ci làmb. macha allah moo loolu. bu nekkoon mbapat bu taw feex la. mais nga jógee foofu bi nga jógee mbapat nga dugg arène wala da nga def ni arène di mbapat mbapat arène wala nan nga doon demee. non mbapat arène laa boole. da ngay arène di mbapat. damay arène di mbapat fu ma ko déggee damay bëre wax dëgg yàlla. mais c'est que ay mbër yoo xamante ne nii. waaw instant bi dama jaxasoo ñoom. Ah, ah. doo mën a wax fi nga jaar ñu ci boppam. mais sama man am na si ñoo xam ne tey ñoo ba seen doom samay doom lañ ay góor lañ. dëgg la fi nga jaar ñoom. waaw parce si sib bi ñoo bëggoon si daan. waaw si ñoo xam ne benn saa ñoo dem ba dañoo jaxasoo. Ah. mais ñoom ñu may dégg xam ne ñu baax li may wax. dëgg la mais lan man doomu daar laa woon ay fàq ak yooyu laa xam man Touba laa nekkoon di jàng. Touba nga nekkoon di jàng. da nga da nga da nga da nga fàq ñëw. dama fàq ñibbi si ñu delloo ba muy sept fois. fàq naa sept fois. fàq nga sept fois. sept fois daara ban daara nga da nga Abdou Abdou magu waaw. ay la ñaar. waaw yar. bi ma bi mujjee si moom bi ma eggee ba baax ah. bi ma toogee si moom sama bopp ko tent dañ ko tent ah. wat wat bu garaaw mu raay sama bopp bi ne ma maam bàyyil faax waay bàyyil faax ñaanal ma ah. def naa fa sept fa génnaat ba ñaanal ma waaw bu ma jaar waaw ma ma sentel bu lamsaar noonu Abou Diallo combat mu yàqaloo woon Ablaye Gueye moo doon bëre ak Doudou Xaaf si Mour Dian boo ko tëggoon dem si yàlla si la ma dégg dégg na combat bi yàqu na ma laaj combat bi ah, ah. dem ànd ak seen si oto te xaw ma ne moom laay bëree moom xam na ne man lay bëree ngeen ànd si oto te man xaw ma ne moom laay bëree moom xam na ne man lay bëree mu ànd ak nees ak fëgala ñu egg moom mbot ko mbot bu rëy Alassane Djigo non non Linguère Linguère si Mour Dian moo ko tëggoon ñu bokk même car ak Sentel Ablaye Gueye dul xam ñoo bëree grand combat bi yéen a bokk bi ñu dem ñoo bokk oto bi ñuy dem duggee du matin. waaw te man xaw ma ne moom laay bëre xam na ne man lay bëre parce que da doon préparé combat ki muy bëre fa man ma jël combat bi. ci biir oto bi a ngi doon waxtaan. ñu ngi waxtaan ba bu ñu eggee ci te man man ma dara yoru ma dara ndox robinet laa yóbbu. waaw ah. yàgg naa daan mbër de du ma loolu dara Alassane Djigo ñaata combat nga ko bëre. daan naa fa coppet bu lamsaar. ah. daan naa fa coppet bu lamsaar. daan nga fa coppet bu ma daanee coppet laa jëlaat lamsaar daan naa fa coppet bu lamsaar. waaw. Massinil fa ak daan fa Ndiol Dias. Ndiol Dias. waaw daan fa trompeur. waaw. ay le grand champion. waaw waaw waaw. bu ñu fa duggee. non Iba Mar moom macha allah Iba Mar moom suma stade la quoi moo loolu. mooy sa stade waaw li tuuti nag. ñoom eh, waa stade yooyu Iba Mar Diop. waaw mais ña nga fa daan. non grand. waaw li tuuti nag ñoom xaju si kii bi. waaw yàlla yàlla sutura yàlla mayaat ñu combat bu gaaw. Ah. waaw. mais mais am na loolu naqare. su ma ko waxee ba léegi su ma la waxee combat bu fekk est-ce que sa rongo ci wat. muy baat. wax nga mayoon saas ah? la gros. ah wax nga mayoon saas la la. boo xam ne bu weer bi doon wàcc rek bu wàccee ñu téye ko. waaw maa ngi seexul Xadim. dëgg la sama poulain yi nii di wàcc noonu quoi. mais mais yokk la gros revanche boobu neex na de. waaw mais moo doon lamb la. mais yokk la gros non da nga may tontu da nga may tontu la gros la gros. non lamb la lamb la maa mbaal la de. non lamb la la gros. non lamb la. non dama laa laaj ndax pare nga pour la gros. non lamb la lamb la. xam nga tey maa combat léegi dafa am encadrement. xam nga nekk tànkam. Ah, ah. même régime bi muy lekk sax am moo loolu. bu ñu la proposé woon lan loolu da ngay jël. non instant moo loolu ça dépend rek si Ousseynou Assane. Ah, ak Père Loum Père lu ñu wax rek baax na. mais man jox naa la feu vert. non amul problème yow sama grand nga boo ko joxee. dama jël mais yow revanche ak Lac Rose fii nan la war a mel. non day grave bii nii. ah waaye. Lac Rose la yëngal jamono yi non da koy félicité bu baax a baax di ko encouragé si li mu jógee. waaw parce que xam nañu sonn na ci làmb ji. pardon. pardon man laaj la waaw waaw. Pape Diagne kay Pape Diagne. sonn sonn na ci làmb ji. ya mu ñëw yàlla xañ ko. Pape Diagne. kay kay. non non Pape Diagne Lac Rose Lac Rose Mame Balla loo ci wax. combat bu rëy. kay kay waaw combat la. eh Mame Balla. waaw wul wul wul sama waay. ndeysaan mais Lac Rose Mame Balla loo si wax. waaw neex. lu tax nga ne combat la. mais Lac que xam nga ne. bu dul dara sax. waaw moom dafa bëreeg Moussa Ndoye daan Moussa Ndoye. moo ko mayoon chance. du noonu la wala du noonu. Moussa Ndoye ko mayoon chance. waaw tey moo ko Lac Rose wax dëgg yàlla combat neex la bu jaadu. bu jaadu waaw sër Sénégal Dakar xam nga ne man rek maa ko gis. waaw ko gis de. yow ci dëgg la koo yegg si. ah koo yegg ndeysaan gis nga kii sama xarit la mais heure liggéey bu jotee da nga may teg si yoon Iba Kane lu mu nekk xaritam xaritam Iba Kane du dugg ci biir loolu moom sama gars yaa ngoog le grand photographe ngoog kenn nuyu naa la kenn naka si site bi waaw waaw grand site bi ñu ngi siy taxale rek ñu ngi taxale ñu ngi taxale rek appareil bi waaw waar lay génnee ah doy waar lay génne. ah grand yow soo waxee loolu dama gëm de. ah, ah? appareil bi waaw waaw ñu ngi siy jéem rek waaw def naa plus de vingt ans nag. plus de vingt ans waaw. ndeysaan <laughs> wax ñu fan ak fan nga jaar na. bon xaw na jafe nag. waaw xaw na jafe grand. xaw na jafe waaw lamb dafa xaw a métti daal. fii ni ñu ko defaree. waaw bon pour photographe dafa xaw jafe. pourquoi parce que dafa am mbaar côté. mu am ker côté mu am mu am naaj. fii su amee ker. fii am naaj. réglage yi du doon benn. te mbër yi dañuy déplacé rapidement. te foog nga adapté wu si déplacement boobu. footaleen si naaj bi mu leer. footaleen si ker bi mu leer moo tax daal vraiment Iba. wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla affaire yi xaw na jafe de. yombul de yombul de. <laughs> waaye sant yàlla rek. merci beaucoup merci beaucoup kii mooy la Dia la grand photographe. na ngeen ko suivre nag sa site bi nu mu tudd. Team 2 TV. Team 2 la neex Team 2 yàlla photo bi la ñuy jiital. mais bëgg nañ développer chaîne bi. te chaîne bi suñ ko développer sincèrement parlé di ngeen gis lu nice. ndax ñun moom lépp lu ñuy defar lu ñuy jiital mooy na rafet. waaw kon daal li si gars yi jàpp daal. i ba dénk nañ la site bi daal. ñaan nañ daal Team 2 TV daal fexe leen mu jëm kanam. jërëjëf ak tey